Salam alaikum. a ngi donc tey jii sur l'émission émission émission xooli artiste tey jii nii ñu ngi fi yëmbal Asegna donc ñëw seet si waa Piksan Décor waa Tante Rap ñuy pare seen 18 ans donc ñu ñëw seet si leen pour waxtaan ak ñoom 18 ans. Då var det. Jaajëf te cool. ñu ngi ci Guédiawaye info point com dans l'émission xoole artiste avec Mbaye Prési donc tey jii ñii ñu ngi Peak Sound Record ak suñu gars yi euh, waa Attente Rap donc salaamaaleykum sama gars yi. salaamaaleykum Mbaye waaw ñu ngi lay dalal jàmm. Eh, maaleykum salaam Mbaye. <laughs> waaw waaw waaw fii moom sama kër la quoi donc li ñuy commencé rek mooy présentation yi ngeen wax ma kan mooy Bihaar ak kan mooy Master bi Master bi la xama nga Baatant Rap mooy gaar bi nii rek xam nga yor guitare bi ci atteinte yemaan ñu ngi ziar ñëpp nii seetaan mooy loolu Bihaat moo nekk nii euh, di euh, ma leader aussi bassiste du groupe Atteinte Rap Ah, bi Hard Marché bi ñoom ñooy euh, membre fondateur group Attentrap boo xam ne ñu ngi ko créé euh, vers les années 2000 bon euh, ci Guédiawaye Pikine Est waaw du ma taay di ko wax ndax date boobu dafa xaw a symbolique si ñun aussi xam nga par rapport ak sax xam nga Guédiawaye ndax Attentrap groupe bu banlieue bi la en général quoi bien que yóbbal lañ dëkk mais suñuy vécu bu ëpp lu ñu def amaana Guédiawaye lañ ko defee ndax fa la ñu saay fa fa la ñu def ay mic open ndax jamono saay fa amul mais mic open la ñuy wax nest donc euh, di euh, dalal jàmm wa Guédiawaye info et puis euh, voilà ñu ngi fi ñu jëm a nak naka lañ échanger. Attan Rock gis nañ évolution bi jóg ci rap bi donc évoluer ñëw ba doon groupe musical di yor ay instruments ak yoy évolution bobu nan la démé ak fan la jógee ak ba yex fi tay tey. waaw bon Attan Trap groupe la bo xamante bi ni bon c'est un groupe bu yag nek ci environnement musical quoi la wax quoi peut-être rap mooy spécialité mais à travers rap boobu def vraiment amoon na ay connotation yo xamante bon mu ngi doon alerter gars que groupe le bon xamante ni bon il en veut il en veut dans la mesure où tey la musique dafa nekk ben une en fait c'est universel mais dafa nekk ben ben genre discipline boo xamante ni lu mu regroupé wu bari n'est-ce pas lu mu dajale si pour moo bari te bagage yooyu noonu artistiquement ñun xam nañ ne mu ngi ñun peut-être nag dafa yeyoogul woon n'est-ce pas ndaxte tey ku déglu album suñu wall bo xamné tra mom en 2010 à travers les singles euh, I'm sorry mais bien avant lolu so remonté touti ba ci ñom ay ñom ay awa yombé buñ koy def ay 2004 2005 ño bounce et tout ça so xolé bon retour groupe bi ci côté discographie bi nga xamné groupe bi bu yag am ben connotation musicale dañoo yag insister ci musique yag insister ci parole ci ay lyrics quoi ndax hip hop lolu mo koy def quoi mais le live lu mu ci groupe je dirais que lolu une suite logique là par rapport à l'époque de ñu doon nous ba ñu commencé musique ba euh, depuis 2011 nous avons commencé mais euh, nous commençons commencé vraiment carrément le public vers les années 2012 2013 ci ay tournées un peu partout euh, dans les bois de New York, ni Dakar donc je pense que euh, groupe B, Attentrap, le live bon c'est toute une histoire c'est toute une histoire c'est tout un vécu bon nous faisons partie les précurseurs du live sur le continent africain en matière d'expérimentation, de jouer instrument en même temps des rabaale quoi donc nous, nous, sommes, nous, faisons partie des précurseurs de ce genre de style de musique-là. quoi.

mais aussi de koy dund aussi tamit quoi voilà c'est ça. waaw Bass mon man li ma euh, relation à relation relation à Rap ak euh, que ni ou à nous comment bon comme les amateurs depuis le début nous euh, vision bi que créer tout le temps ñun ci logique boobu la ñuy doxee bon avant de donner des prises prise comme nous à un moment on s'est dit que bon là nous donnons am une carrière bu nous am euh, am na leen lu ñu bëgg li ñu bëgg parfois mënuñu ko am ci dem def ay prise ou def parce qu'on voulait plus que ça beaucoup nañu nous euh, ñu li nekk ci ñun ñu koy partager ak nit ñi bon nous am ay ambition que de créer Big Sound Records bon on s'est dit que il faut que ñu def ko

yenn euh, suñu yenn jeune frères yi nga xam ne ñu ngi ci banlieue bi te des fois amul woon tey par exemple yenn structure yu bëri foofu amu fi woon studio yéeg yi euh, moment bi nga xamante ni ñu ngi samp Big Sound boobu studio presque mën nañ naa yëmbal amul woon y avait pas de studio sax déjà mu nekkoon benn manque boo xamante ne les gens ou les artistes yi nga xam ne nekkoon nañ fi euh, bëggoon nañ ko soxla woon nañ ko trop c'est ça nag loolu moom moo ñu gënoon a motiver waaw ñu dee ci pour que samp ko tey teg ko mon magasin, est bon ba que Big Records qui a produit pas mal d'artistes même l'album album de y a bi nga xam en 2010 c'est Pixar Records qui a produit d'autres artistes il nga a ne ñu ngi aussi ils préparent des trucs ils bientôt ils vont ils vont le voir. Wow, attendre Rap évolué depuis 2000 Nous sommes ici en 2018 Attendre Rap am 18 ans donc euh, évolution 18 ans Ce nous la ñu 18 ans Yoy. aussi tout récemment on voit dans si toile net beeg il y a un événement si 18 ans donc loolu nous ñu mën a wax évolution 18 ans et l'événement événement bi ngeen ciy bon évolution 18 ans c'est une suite logique bi mooy euh, li Amar wax sank dafa am fenn fuñu joggé am fenn fuñu am am fenn fuñu toll am fenn fuñu bëgg dem que chaque jour gars yi doon nañu sentir né non son am na benn connotation bu ci nekk yaa benn yàlla yàlla yàlla leen lu ci nek moy l'aspect musical surtout le euh, le live bi nga xam dañ koy sentir ci bir parce que dafa am spécialité nous sommes des rappeurs mais nous sommes des musiciens aussi xam nga tey bu doon da ngay rap tout simplement c'est pas pareil que yow mi rap kese bokul ak yow mi nga xamné ne da ngay rap mais toujours de l'instrumental c'est autre chose euh, te lolou tamit euh, dañu nek ci dañ ci euh, précurseur c'est pour cela dañ ci seul. Sénégal bu bu mënut le life au Sénégal sans nous citer te lolou dafa ci suñuy rêve parce que dañu nous suñuy mag ñuy def du ak bande de l'NTL ñun ñu il faut que ñu rajouter ci c'est eux qui nous ont parce que boulen leen gisul woon amaana duñ ko def dañ len gis euh, comme euh, en l'occurrence Awadi yi nga xam ne joué ci concert bi 2004 du joué Guédiawaye ak ànd ak mu di def euh, ci ci tournée bi te par exemple ñom ñoo ñu bëgg lool loolu bi ñu ñëwee tamit ñun tamit ñu rajouter ci leneen ak leneen légui nak lool nak ça a pris beaucoup de temps parce que tay pour job ak guitare bi ak plus flowé ci kaw but bi ñaari affaire yo xam parce que bu dee kii way

Wow, man lu ma instant bi attente rap évolué na donc euh, ñëw am depuis 2000 ba 2018 am 18 ans euh, dama bëggoon xam évolution boobu nu mu demee ba ñëw ba yegg si fii en plus aussi yéen a ngi pare benn événement si 18 ans yi donc ñu ngi gis si toile bi yëpp yéen a ngi def ay annonce pour 18 ans yi mu bëggoon aussi ngeen waxaale ma si événement 18 ans yi noo leen koy pare ak loo leen ciy waaj quoi

depuis il y a des années ñu def ñu ñu nekk ci ci ci ci bagage yi on a vu euh, Amadou wax na ko sànq mooy que boo dégloo son waxtaan rap yaa am benn spécialité les spécialité du lenn lu dul musique bi côté aspect musical kon nit ñi bon waroon na doon nañu xaw a xaar ci ci loolu parce que spécialité groupe bi mooy que nous sommes des rappeurs mais des musiciens Amad il est bassiste man je suis guitariste donc loolu dafay am lenn lu muy def à un moment loolu dafa nek dafa nek lo xam dafa nekk ci ñun te il faut qu'on le partage avec avec avec avec tay ñi nga xamante ne fan ak ak le public hip hop hip hop tay mu nekkaat benen apport bo xamante dañ ko rajouter dañ ko apporter ci hip hop gal sen euh ndax nous sommes les pionniers ci aspect bob moy que des rappeurs qui jouent en même temps des rapper parce que te te loolu nag li tax ñu don ko c'est parce que ça dañ ñu inspirer ñu inspirer ce sont nos grands les précurseurs du rap gal sen

c'est rappel rek dafa jafé won yenn yi ñun comme que machallah yalla dogal na mën nañ ko maîtriser nañu tous les techniques et tout bon on va pas se limiter sur ça parce que lolu mu ngi fi déjà légui lan la wara def comme moy que il faut que ñu bolé rabbi ak leneen le live là il faut qu'on le fait mais nan lañ koy défé pour que lo xamante ne day nekkaat nges moy lu ñu mës wax rek ñun ay nges te nges moy loolu du never seen before moy que nek un guitariste wala nek un musicien ba pare en même temps di jouer di nga xam ne yow di di def li ngay def loolu moom mooy spécialité dafa ça prend beaucoup de temps du liggéey bu facile wala benn affaire c'est pas du dañuy dem studio di def parce que ku xam ku wax live xam ne dafa dafa investissement la bu metti parce que y a d'autres musiciens les batteurs clavistes d'autres guitaristes saxophonistes y ak les choristes tey c'est toute une équipe tey liggéey boobu du dem benn liggéey boo xam ne dafay facile dafa yomb wala loolu tu prends le temps de faire des trucs professionnels pour que tu c'est pour cela que si ñu par exemple euh, nos produits une distance distance expliquer ne on peut pas nous, monotonie beaucoup tendance parce que nous sommes pas un groupe qui suit par exemple tendance ou li donc ñun nous sommes des guests et on le restera parce que nous bëgg ndekk ce xamante ne tey bu ñu ba attendre rap n'existe plus tey nit ñi di wax wala c'est ça am nañ beneen pensée ak beneen philosophie boo xamante ñun dañ on on le vit en tant qu'artiste ci 18 ans aussi on s'est dit que comme que 18 ans de carrière lañ 18 ans euh, euh, majorité lay lay def léegi nag am en tant que des icônes ici à Yeumbeul il faut que nous def des trucs

commence dañ koy def def ko dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dugal ci biir 18 ans yi moy on a mis sax euh, ci ci 18 ans yi ben association bo xamantene ñu ci liggéey ak ay def wareef ak tous les structures yi nga fi xam ñoo fi nekk ak ak d'autres ak ak tous les artistes aussi de yembal yo xamantene mënu ñu leen citer parce que ñom ñep ñi nga xamantene tay ñom ñoom euh, boo nee yëmbal am na ñoo xamante tu les cites ak ñeneen ñekk nos frères ak waa PECSAO nag ñëpp ñëpp ñëpp ils sont ils sont dedans muy euh, association bu tudd académie banlieue culture di ABC laaj ñu lancé waale ko ci dirigeants yi pour que muy luñu andi tek ko muy structure bo xamantene dafa wara taxé à l'image d'Africulture Ban ak de J-POP parce que tam on se réfère ci ñeneen ni pour def def ba paré yok yokk ñu ngi à yëmbal dañ koy génné ci 18 ans yi fay nek ben fête bo xam ne yembal ñom ñokoy koy tous les acteurs tous les artistes yi nga xamantene ñu ci la culture urbaine euh euh, li koy tëj nag final bi ak concert yi ça va se passer le 13 octobre au centre Galéna non rural mu ñu mu mu war a nekk incha euh, programme boo xamante ne inédit lay doon parce que ku ñu xamit xam ñu ci tóoj mbir ñun tóoj la ñu xam euh, ce programme-là sera divisé en direct ci ay télévision là nous sommes en train de de de de de, de finaliser avec ñoom bon ñu ngi ci euh, bientôt les spots dina commencer passer gars ils vont Euh, dinañ dinañ dinañ gën a xam après ça va passer par ban chaîne ak nan nan lay demee laa ci loolu programme bi tamit euh, dafa dafa dafa dafa englobé yu bari parce que tey war nañ fa joxe ay diplôme de reconnaissance comme tey Eh, bon di expliqué waale tam ci 13 octobre bi si dafa juste un journée boo xam si dédié spécialement Pocoti euh, ndax Pocoti dafa nekk benn nit boo xamante ne tey c'est un c'est un gars multidimensionnel boo xamante ne tey il a marqué son époque il a marqué tey par exemple Euh, li nga xamante ne moom mooy le hip hop galsen le hip hop sax mondial lay wax parce que euh, son il est il faisait partie des meilleurs de sa génération mu dëkk fii nii yëmbal tey parce que ñu koy rendrale hommage ci ci ci ci bés ci ci ci bés bi waaw donc rendez-vous est pris le 13 octobre à Attente Rap bi fête 18 ans donc comme nous ko dit, waxee ben, ben spectacle ce sera grandiose beaucoup ko raté donc pour terminer cette émission sur Guédiawaye Info